trois cent ñoo ngi daal di dénoncer maanaam nga ñu nga xamante ne moom mooy benn politique bi nga xamante ne ambassade France da koy daal di def fii ci Sénégal loolu nag ñun am na ñu koy woowee mooy ànd suñu xoolee fii lim fii de trente personnes ambassade France fii ci Sénégal dafay daal di sàcc donc li nga xamante ne dafay daal di toroxal li nga xamante ne mooy africain aussi ndax dafay daal di ay passeport africain confisqué ko maanaam téye ko denc ko ci seen tiroir parfois ci anam bi nga xamante ne def na ko yoon te loolu nag ñun ñëpp xam nañu traitement bi moom ci yoon trois semaines kese mais am na sax phase dañuy daal di jël passeport yi teg ko foofu ci loolu toujours am na sax phase ñoom dañuy maanaam euh, xaalis bu ñuy sàcc africain yi yemuñu ci sàcc xaalis bi ak ñoom seen maanaam xaalis boobu noonu léegi la ñuy utiliser pour financer. projet yooyu noonu projet yi nga xamante ne xaalis bi nga xamante di jël ci business boobu bi ñuy jëlee ci wàllum visa yooyu lu ci gën a yéeme ñuy def nii yëpp maanaam sàcc africain yi ak ñoom seen daanaka loolu yëpp dañ koy def en complicité ak suñu état maanaam gouvernement bu Sénégal te président Macky Sall nekk na moo bokkul ndax ñun ñëpp xam nañu président Macky Sall au delà de ñun ñu ngi koy woon mais yaakaar naa Sénégal yi yëpp teg nañu seen bët que président Macky Sall daanaka ci ay waawu France kese ci lay dox ndax bu amee moo ko su ko waxee xonk na mu ne cuur bu ko nee weex mu ne tal moo tay bu ñu sàccee affecté toroxal humilié jël seen xaalis confisqué seen kii passeport maanaam loolu état bi Sénégal affecté daal di ne pat bu suuf ñëpp la ñu def kenn du moo tax nag boo leen xoolee ci mbirum visa yooyu lim bi daanaka dafa gën a yokk ndax en deux mille vingt suñ doon def benn kii xëy mooy il y avait trente deux mille demandeurs de visa maanaam ñi nga xamante ne dañoo bëggoon jóge fii pour dem euh, continuer mooy seen i jàng wala ak ñoom seen maanaam campus du France campus France bi ñu defee seen yëf yëpp. maanaam seen jur njaay ak seen sàcc yi ak ñoom seen léegi nag dañuy daal di ay motifs yi nga xamante ne amul bokk amul kenn maanaam nit ki na def bañ a sàmm sa visa mais duñ la jox maanaam benn justification bu leer maanaam loolu français bi lay woowee maanaam ay motifs fallacieux yi nga xamante ne dañ ko daal di teg ci dootu africain wala sénégalais pour naa ne ah yow moom amuloo sa visa moo tax nag ñun waa fa tey dañuy daal di lu ñuy wax ne dañuy exiger d' abord benn la restitution maanaam nañu delloo nu mu gën a gaawee d' abord candidat yi nga xamante ne ñoom ñoo déposé visa nañ leen delloo seen passeport ndax nit ki kay boo bañ ne mooy visa ndax mooy des choses delloo ko mooy li nga xamante ne mooy juróom passeport mais comme France dañuy jël passeport jàmbur teg ko mooy seen bureau moo tax ñu ne loolu dañuy exiger ñu delloo leen seen passeport yi nu mu gën a gaawee ñaareel d' abord nañu delloo tamit xaalis ndax gis nañ fi lu business gisoon nañ ko lii moom lii mooy corona mafia visa ñu jël sénégalais yi nga xamante ne ndax sàcc mënul weesu ñu ne la essence sept cent francs ban livre jàkka fii ci Dakar ngay fay bourse dix mille francs wala onze mille mais loolu sàcc la étudiant bu ñuy déposé pour seen demande de visa dañ leen di facturer li nga xam ne mooy mille cinq cent euros ay boo amee sens daanaka yow duñ la delloo dara wala boo amee sens tuuti ñu delloo maanaam cinq cent euros mais loolu sàcc moo tey nag dañ leen di wax nañu delloo xaalis ndax lii sàcc la ñetteel waaw mbir mi nag foofu mu jaar yoon jaar yoon mooy benn ambassade France dafa war def li nga xamante ne mooy. transparent ci seen information teg ko ci yoon ndaxte nit ñi am na maanaam ay ay ay kii candidat di nga xamante ne ñoom ambassade France dañ leen daal def ci li nga xamante ne moom mooy liste rouge te loolu day sax étudiants yi wala africain yi nga xamante ne ñoom ñooy demande visa xamuñu ko ràcc doon nag ñenn ñi bokk xamuñu ndax ñoom ñoo ngi ci liste rouge boobu noonu mais ambassade France dafay daal noppi léegi ñooñu à chaque fois. suñu demee déposé ko seen visa maanaam ambassade France day dóor am ko mooy am ko mooy seen xaalis nit ki kay boo ko defee kii nga risque rouge kay nee ko rek yow ah def nañ la risque rouge mais noonu dañuy doon ne pat nit ñi di dem di continuer ñoo ngi jël xaalis boobu noonu di di di ko lekk moo tax ñu ne loolu tamit rek dafa war a arrêté ñetteel bi mooy dama ne ful la mooy jaay ak loolu mooy lan sànq léegi ambassade France wala ak yeneen ambassade dañuy daal di imposer africain yi wala sénégalais yi pour ñuy am ay visa pour dugg seen réew dama ne ñun ñu ngi exiger fii ci réewum Sénégal bépp pour réew bi nga xamante ne dafay daal di exiger muy sénégalais wala africain yi visa pour seen réew dama ne ñun tamit Sénégal loolu dañu war a def loolu mooy moo tax nag ñun waa Frappe dañuy daal di encouragé bu baax a baax ñi nga xamante ne mooy ndax yomb dañ leen di encouragé encouragé parce que dañoo briser maanaam li nga xamante ne mooy euh, jéggi yi yooyu nga xamante ne nit ñi parfois dafa doon am mooy ci seen tey su ma génnee wax rek non gars yi am na dañoo dugal kii la ñu suuf ndax il faut se battre maanaam kuy bëri daan te ñuy tey dañu di encouragé bu baax a baax ndax leer nañu tey dinañu daal di jox courage ak sañ-sañ pour ëllëg victime yooyu nga xamante ne bu ñu amee mooy kii ñu leen métti ñu génn wax ko moo tax dañ leen di encouragé. fi may kiiwee dem ne mooy ah FRAPP ah le front pour une révolution anti-révolution populaire et panafricaine ñenn ñi ñu ngi woowee France Dégage waaw tey nag dañuy gën a ko ñu wax France Dégage la te di leen yi yëngal rek yëngal incha allah maanaam vendredi bii passé déposé nañu ci taabal préfet bi nga xamante ne moom tudd Mor Tall Tine ah di ko sagam daa yi ñoo ngi leen di seet ñoo ngi leen di def lu ne kenn waxul daal ñun Fra déposé nañu lettre d'information pour xamal ne moo arrêté incha allah kon ñun waa Fra ak victime yii jeudi 13 octobre à partir de 10 heures dañuy daal di séddee ci buntu ambassade te day sax sax ambassade France nañu baax a baax kon ñun waa Fra ak victime yii jeudi incha allah à partir de 10 dañuy ñëw ci buntu ambassade pour protester nag li nga xamante ne mooy sàccum xaalis bi àndal bi ndax dafa tey loolu noonu laa ko